Thank you. auditeurs ñu ngi am mbégte di leen retrouver sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal c'est toujours avec un réel un immense un agréable plaisir qu'on vous retrouve euh, sur la 2STV tey euh, njortu ne li ñuy euh, liggéey ci li ko dalee altine ba aljuma mu ngi dugg ci seen seen i nopp wala seen i gët ngir ngeen mën a jëriñoo li ci baax li dëng ngeen jàpp ne suñu masadi la ni ñu koy defee li ko dalee altine ba aljuma 8 ba jàpp 10 ci émission bii di tudd Good Morning noonu lañ koy baamtuwaatee tey ci aljuma ji oustaz Ousmane Niang kon tey fas yéene fegoog euh, ki nga xam ne moom moo di ay ganam di euh, Cheikh Mambou Diop nga xam ne wax dëgg yàlla borom xam-xam la bu yiw boo xam ne bokk na ci njabootu euh, Cheikh Abdoul Khadri Jeylaani fii ci Njaasaan ak ki nga xam ne moom moo di suñu geneen gan di imam Baba Mokhtar moom it bokk ci kër baay Mokhtar Ka. Euh, di def liggéey bu am solo ku ci nekk ci ñoom am na loo xam ne moom moo sabab seet seewaay ci plateau bi waaye lu jiitu ñun dinañ ko lalak waxtaan woo xam ne dinañ ko mën a jariñoo ba yenn lënt-lënt yi nekk ci suñu xel ñaare ñu mën ko saafara indi ci ay tontu ci laaj yi ñuy laaj léeg-léeg te du mën a jëm kaw lii lee moo nar a nekk suñu euh, solo su waxtaan ànd ceeg oustaz Ousmane Niang bi nga xam ne defe naa ni euh, moom moo yor kaddu CEDEAO ci kanam dina def déclaration bi mbokku téléspectateurs yi lii bu ñu ko sofee ci Euh, li ñu nar <laughs> waxtaanee oustaz bul reetaanagum dañ ciy daal di dolli rek li nga xam ne moom mooy bis ñi ki tey lan moom mosoon a xew ci suñu réew te ñeel ñu soxal ñu fi mu nekk nii nag àdduna bi ñu ngi ci dig digalu Ukraine ak Russie foofale euh, ndell yaak euh, fetal ya ngànnaay ñu ngay jolli ay doomu aadama nga fay ñàkk seen bakkan yàlla yàlla def ci ndox mu sedd ba jàmm dellu si waat loola mooy actualité dans le monde te léeg-léeg dañ naan aydu yem ci bopp borom lu ci waay mën rek na ko ñaan ba fu jullit mën a nekk ci àdduna bi mën a am jàmm ndax Ukraine ak euh, Russie yëpp fu ci nekk am na ay doomi jullit mbokku téléspectateurs yi tey la ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2022 lan moom mosoon a xew ci suñu réew bis ñi ki tey fi ngeen di gis moom mooy fi ñuy wax place de France wala allée bi jëm place de France ca Thiès le 25 février 1988 dafa am ay affrontement maanaam xeexoo bu métti bu amoon ci diggante militant opposition bi ak les forces de l'ordre maanaam ñi nga xam ne ñooy alkaat li ko sababoon moom mooy dafa am parti bu tudd parti démocratique sénégalais dañoo waroon a defoog ab meeting foofa ca Thiès force de l'ordre yi ne leen déedéet du fi amee meeting bi amu leen autorisation def ko kon à la mythique place de la de de de euh, de Thiès qu'on appelle la place de France c'est pas pourquoi on n'a pas encore changé donc kon ca autorité ya joxe ndigal takk der yi ñu jàmmarloog xale yi jàmmarloo bu métti par la suite on a tous entendu euh, un extrait le bout du discours du président de l'époque Abdou Diouf qui disait jeunesse thiessoise une jeunesse malsaine ceci est l'histoire du Sénégal le 25 février 1992 266 ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay sénégalais la ñu daal di waññi ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Zambie débarquement à l'aéroport de Dakar la campagne d'expulsion euh, visait les ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest kon Zambie dañoo waroo woon ak euh, gis-gis ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee fii ci Afrique sowu jant li waraloon loola moom moo taxoon lu war a tolloog 266 ci ay doomi Sénégal ñu bëgg a bëggoo leen taxañal leen seen i bagages ci li ñu attanoon yëpp leen ci aéroplan ñu daal di wàcc ci aéroport Léopold Sédar Senghor bu Ndakaaru bi loolu mu ngi amoon bis ni ki tey le 25 février 1992 le 25 février 2007 fii ci Sénégal la ñu doon def ab élection présidentielle boo xam ne ka ko moom mooy Daara Wade Ndiak mi ñu tuddee stade bu yees bi ci Diamniadio le président de la République Ablaye Wade était parti en élection présidentielle après quelques contestations le président sortant Abdoulaye Wade avait été proclamé vainqueur dès le premier tour avec 55,86 pour cent des voix exprimées ki toppoon ci moom di ki sa te mu jono doon. ab rivalam ci wàllu politique mooy doomam ji mu formé loon boppam mooy euh, ndaamal Kajoor loolu ñu naan Idrissa Seck mi amoon 14 virgule 93 pour cent pour la partie d'histoire c'est terminé voici le saviez-vous Allez Grégoire le saviez-vous on part voilà jamono yi euh, pré-islamique Medinatu Munawara tuddul woon Médinatul Munawara Yatrib la tuddoon ça c'était à l'époque pré-islamique est-ce que vous saviez que Médinatul Munawara qui veut dire la ville des lumières mu ngi tuddoon Yatrib ça c'était bien avant l'islam il faut pas confondre le saviez-vous ba tey ay ca ñu dem Grégoire parce que je veux pas <laughs> entamer une chose et avoir le contraire à l'écran donc on y va voilà tous les prophètes ont été des bergers mboolem yonent yi yàlla mës yoon yónni ñëpp ay sàmmkat lañu woon mën naa am après ñu def leneen nekk ay attekat nekk ay juriste waaye ñoom ñëpp seen liggéey euh, ba ci Insa ibnu Mariam balaa moo nekk charpentier bi nga xam ne moom moo di Joseph euh, ki nga xam ne moom moo euh, moom la ñuy wax naan le père de de de de de le père celui qui devait être le père de Jésus avant muy nekk. charpentier maanaam liggéey ci bant nekkoon na ab sàmm kon liggéeyu sàmmkat liggéey la boo xam ne yonent yi yëpp yi yàlla yónni jaar nañ ci moi je savais pas je croyais que kii day dekk lii kii j'ai dit ah <laughs> ah bon ils étaient tous des bergers maanaam des sàmmkat la mosquée Kouba est la première mosquée construite au premier temps de l'Hégire Après avoir été saché de la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam trouve refuge aux abords de Médine où il construit sa maison et cette mosquée kon jumaa ji njëkk ci l'islam ñu ngi ko tabax fi nga xam ne moo di Medinatu Munawara moom la ñuy wax la mosquée Quba euh, noonu la su ma juma Masjidul Quba c'est la première mosquée construite euh, après l'hégire ginnaaw gàddaay gi kon ci la kon euh, sangu-sangu yi sallallahu alayhi wa sallam daal di tabax lu kër ca Medinatu Munawara ak jumaa ji nga xam ne fa lañ doon jaamu yàlla muy d'ailleurs la première mosquée de l'islam tey bu ànd ak dogal yàlla dinañ waxtaan waxtaan wu fasantikoo ànd ñi nga ne ñoo di suñu ay gan ñu dalal leen ñu nekk ay nit ñu yàlla baaxal ku ci nekk di yëngu ci domaine bi nga mëne ci wàllu diine oustaz Ousmane Niang la ñuy feggool waxtaan woowu maa ngi lay nuyu te di la ziar. Pape Sidi di la fay ah <laughs> maa ngi lay sant. trois pièces moom te gaañ nga ko waa macha allah. <laughs> un pièce laa doon def mais tey dama laal tura daal. non rafet na trop <laughs> mën nañoo trop. macha allah jërëjëf bu baax di nuyu borom kër Alxaaji Ndiaye di nuyu Soxna madame Ndiaye. di nuyu sëriñ Mountakha Bachir di nuyu sëriñ Aboubacar Sy Mansour di nuyu sëriñ Mahi Niass di nuyu bépp kilifa diine ak kilifa aada bi nekk ci réew mi. di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoo liggéey ci biir kër gi maanaam sax nga xamante ni macha allah dafa am ay gan yu màgg. di nuyu tamit ñi nga xamante ni donc ñoo safoo 2STV ci biir réew mi ak bitim réew Pape Sidi Fall macha allah nee naa la oustaz nga da ngay làqatu. déedéet. parce que li nga wax dëgg la Madinatul Munawwara avant muy tudd Madina mu ngi tudd Yathrib. Yathrib Yathrib bu ñu ko waxee. moom mooy waaw ah, bu ñu ko waxee moom mooy lëndëm yonent bi sallallahu alayhi moom moo tuddee ko Madinatul Munawwara mooy ville bi nga xam ne dafa am leer. sallallahu alayhi wa sallam Pape Sidi sa safu yooyu benn bu nekk bu ñu ko jëloon tey rek. mën nañ ci def débat <laughs> waaye comme ni nga ko waxee macha allah li duuf ci nag bi xelul ci cin bi. di am ay gan yu màgg tey macha allah ñu koy wax Cheikh bu Diop. kenn werentewu ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lu ñuy invité tey incha allah mais bal bu nuyoo ba pare bëgg naa mu defal ma benn way bu mu def ci tawasul ci borom Ndiassane bëgg naa mu woyal ma ko tey incha allah parce que daf may daaneel di nuyu tamit imam Baba Mokhtar Ka. nga xamante ni Baye Makhtar Ka nekk na ci kàngamu Cheikh Ibrahima ñas ba mu ñëw dakaar rek mu ngi fekkoon juróom-ñaari juma def na fi lu toll ne 74 juma ba mu ñëw dakaar rek fekk na fi ñetti aarif la fi fekkoon ko ñu naan Baye Ibra ak ko ñu naan yaafaatu Meng ak ko ñu naan Ibra macha allah créé na donc ay muqaddam yu bare dafa doon wax benn wax mu ni nit jóge fii di dem Kaolack. pour xam yàlla dafa nekk lu metti dinaa fexe ba biir ndakaaru nit ñi dañ fi xamee yàlla dootuñu dem Kaolack mhm. kon ku nekk mu ngi jógee ci àdduna bi donc di xam yàlla fii di ndakaaru ñoom am événement bu mag 5 mars insha allahu taala mhm. mais balaa boob nañ ko laaj lan mooy tarbiya dañ ko laaj lan mooy maarifa xam yàlla dañ ko xam cheikh bu kon ñu bàyyi ko mu nuyoo ba pare nañ ko laaj tamit ay question balaa muy wax ci événement am euh, ahlan wa sahlan bu Diop suñu xarit bu baax bi maam Cheikh Bou aoudu billahi sami alalim min alcheytani arrajim illahin bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin munawwir alabsar alarifin bi nur almarifati walyaqin اللهم صل على من لا تتناهى مفاقره ومضاياه الذي إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين ثناياه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن شيخنا وإمامنا ووسيلتنا إلى ربنا شعبي محمد ابن Cheikh Sidi Mouhamed ibn Cheikh Sidi Bekaay il Kunti eh, ñu ngi leen di ziyaara fa tabarakallahu ubbeekoo sant yàlla julli ci yoon ci yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam gërëm sunu ñaari way jur yàlla na leen yàlla gërëm waaye nag ñaanal sunu wasila di Cheikh bi Mouhamed ibn Cheikh Sidi Mouhamed di la nuyu Pape Sidi bu baax a baax a baax di kontaan ci plateau bi waaye nuyu oustaz Ousmane di kontaan ci jano bi ñu jano nuyu suma mbokk mu tedd mi nga xamante ni moo fi teewal kër Cheikh Ibrahim di leen nuyu nag ci turu fa ma jóge muy Njaasaan ci turu Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay ibnu Cheikh al Bekkaay ibnu Cheikh Abi Mouhammad ibnu Cheikh al Bunaama tey kooku mooy xalifatul am li tariqati l qadriyati l bekkaayati l muxtaariyati l bunaamiya di teewlu ba ca kanam ñu dugg ci waxtaan wi incha allah bisimilah aousubillahi ah, mina seytaan rajim ñi ngi nuyu d'abord borom kër gi muy El Hadj Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar waaye di nuyu aussi Pape Sidi di nuyu aussi sëriñ bi bu baax saa ñu koy nuyu di nuyu suñu sëriñ jaaree ko ci buntu Mawlaaya Baye Baba Muxtaar Ka suñu sëriñ di jaare ci buntoom di nuyu mu Mouhamadul Muxtaar ak suñu yaay yaaw Molaari Fina waaye Baye ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp fu ñu mënti nekk dekk États-Unis Europe Asie ak fu ñu mënti nekk Sénégal nuyu nañ leen ziar nañ leen euh, di wax bisimilah jërë ngeen jëf. jërëjëf Patre Pape loolu moo nekkoon nuyoo <laughs> mais na bëgg naa euh, Cheikh bu may ma la benn way bu def ci waaw bu moom gis ko moom ci tawasul ci euh, waaw. subhanallah walhamdulillah la ilaha إلالا بدأت بسم الله في غل ستري فاسمعه قسن مني من الدر وصليت في الثاني على خير قلقي محمد المبؤوش بالفتح والنصر feebar bu metti dal na ma te sama doktoor ba koy wéral sori na ma lool waaye jéege ma ma ngay neelaw ca yasri di dox di te daanoo soxol bi fees dell ak mbëggeel ba sama bët yaa nga far lëndëm gisul lu dul kee fa yasri ba majnuunu laylaa dofoon na bis ci bëgg laylaa ba am ca tur maa ko gën a foorle man wóolu naa man sama soppee nga yasri ba ki tax ba foo dem ñu jox la cër ba siin naan waajaa nga ne yombal la xaalis ak yëreeg jigéen lii ki ko mën ma nga ca ba waaye am na charte ku bëgg a mujjeeg teraanga ji maytul di mooy del sellal bu baax saxul di muñ del bal bépp noon royal ma toog fa yasriba kuy tagg yonent bi waroo di mer waroo di rëy bul diis bul iñaan waroo di siis bul nay del joxe royal ma toog fa yasriba ndongo ngi boof di yalwaan ànd ak rafle xiif mar ubbil ko magasin yi ci bul la neexe sëñ bee bul ko xoolee ni mu mel yéege ko ngir ni nga mel moom daa tilim te yaay fóot raxas ko faat ko sëñ bee allahu yow rekk ay buur yonen ba moo di maxtaar ndongoy fesal cofeela bu ca kanam ma wax la li ci toog <laughs> macha allah am na ba tey xale yaa ngi koy eh, di ko di ko di ko di ko di ko joobe ci tiktok bi mooy ba muy nettali alimatu sadia xam naa boobu moom balaa moo tëj moom da nga ko joxaat yeesalaatoon ñu ko ndax am na fu mu dogee woon maa ko doon filmer nag <laughs> am na fu mu dogee woon foofu moom daf ma arrangé wul eh, ndeysaan ñu ngi mastawu suñu Euh, mbokk mi di Daba caméraman ci 2STV responsable des caméramans tey dafa xëy ci 5 heures du yëgal ko ne ab jarbaatam dafa génn àdduna euh, doomi rakkam bu am juróomi at mu koy ñaanal yàlla xare ko aljana c'est vraiment euh, waaye xale moom njortu rafet na ci moom ndax moo moominu yàlla yi moom mm-hmm. daanaka foofu moom xel dal na fa mbokku téléspectateurs yi waxtaan wi mën naa tàmbali oustaz ndax am nañ ay thèmes base mm-hmm. waaye ku ci nekk am na loo xam ne moom mooy euh, waxtaan wi fu ci nekk nag comme li ñu bëgg waxtaanee dafa xaw a bari. Mm-hmm. Euh, ñu bëggoonoo commencé imam. Euh, Maarifa. waaw. Mm-hmm. Oustaz. waaw aywa macha allah lan mooy Maarifa dañuy dégg ci nit ñu bare rawatina ci taalibe Baay. Mm-hmm. te bu ñu waxee Ibrahima Niass rek. ki lañ gën a xamee ci Maarifa. léegi-léegi même talibé bàyyi maxtaar dañ koy wax sax bëgg xam lan mooy maarifa waaw ah, kay di nuyuwaat beneen yoon di sant sëriñ bi bu baax mi nga xam moom lañ feggoo ci émission bi mm-hmm. di jaaree ci suñu buntu Mawlaaya Baye Ka mi nga xam ne tey suñu doone taalibe ci kër Cheikh Ibrahim yàlla ak moom la li nga ma laaj nag question bu bu centrale la mm-hmm. euh, damay wax rek ne man je suis cadre administratif au niveau des centres des œuvres universitaires de Dakar nekk président euh, nekk porte pare lu daayira Baye Baab Muxtaar Ka en même temps aussi nekk chef de protocole ci sëriñ bi Baye Baab Muxtaar waaw tarbiya moom yaakaar naa ne baatu du dara lu dul baatu yar mhm. ndax suñu dégg nit ki dafa doon yàlla su la bindee euh, dimbale la nga doon tijaan wala nga doon jullit parce que noo doon jullit te doonoo tijaan waaye munoo doon tijaan itam te doonoo jullit mhm. nga doonaat taalibe Cheikh Ibrahim Niass Baye Niass moom Mawlaaya Cheikh Ibrahim Niass képp ñëpp xam nañ liggéeyam bu rëy ci lislaam mm-hmm. defar bi nga xam ne defar na ko ndaw ñi tubaab sii di war nañ xam dara ndax xam na Kaolack bu baax a baax mm-hmm. baax mm-hmm. waaye du dara lu du parce que nit ki yaakaar naa ne su la yàlla dimbalee nga xam diine li la ci yokk mooy nga doon tijaan rek mooy loolu lépp ci rafetal la mooy dalay tax ba doo wàññeeku wàññeeku boobu nag mooy nga dellu ci chantier iblis moo tax xale ginnaaw bi nga doonee taalibe bi dafay baax ñi yar la yar boobu mooy tarbiya mooy yar sa bakkan bi ba doo mooy yàlla ci li nga xam ne yàlla gërëm ko ba foofu féetee rek da ngay gis ne yaa ngi ànd ak ki nga xam ni mooy jëmm yàlla ji mm. donc loolu mooy tarbiya mooy yar nit ki ba defaru ci defaru rek la ko la ko mais mais mm-hmm. mais ce que tarbiya dafa laaj mm-hmm. nga topp mm-hmm. ginnaaw nit mu xamal la yàlla wala tarbiya ci alxuraan sunna lañ koy xamee waaw xam nga parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man du ma d'accord mukk nit sama gëm-gëm lay wax nga damaa bëgg xam yàlla nga topp ci ginnaaw nit damaa jàpp jàngal sallallahu alayhi wa sallam boo ci jaaree di nga xam yàlla subhanahu wa mm-hmm. taala mm-hmm. waaw loolu moom Mawlana Cheikh Ibrahim Niass indiwul loolu sax mm-hmm. ndax moom yarut ay taalibeem ci ñu topp nit ndax loolu lu koy wane rek moo ci ruhul ëdëb soo bi mu bind muy téeréem bi njëkk muy ruhul ëdëb dafay wane ne diggante sëriñ bi ak taalibe dara mun ci nekk barzax bi leen rek la mooy yàlla mooy sëriñ bi su demee ba xamal la boppam rek kon kooku jëriñutu la loolu nag la ñu Mawlaaya Baay Baabu Muxtaar Ka dimbalee mooy yar na taalibe mi yar bi nga xam ne ñoom ci jëmmi yàlla ji rek la leen yar mooy jubluwu leen mooy wanu leen jëmmam ji mooy jëmmi yàlla ji rek la leen di war mooy li nga xam ne mooy jëmmi yàlla ji nag génnu diine l'islam mm-hmm. génnu tarixatu tijaniya nga respecté précepte yëpp mais itam nga doon nit koo xam ne ku sell la parce que mm-hmm. nit ki soo amul ixsaan sa iman du dëgër kon loolu dafa baax moo tax taalibe bàyyi soo leen gisee ñu leen di gis ñu doon ñu sell di liggéey ci salaatul fatiha ndax bàyyi ñ ci loolu la yar ay ay ay ay waaye doonu rapport entre nit ak nit mooy topp ñu sëriñ ndax jëmmi nit dafay far. waaw mais mais mais nit mën nga dund bëri doo am sëriñ. lu mën a nekk la ndax sëriñ lu mën a nekk la. parce que mm. diine l'islam comme ni nga ko waxee mooy sunna. Mm-hmm. am na ñoo xam ne tey lañ ay sunniye lañ. Mm-hmm. mooy ñoom dañuy yem rek ci euh, euh, diine lislaam rek loolu lañ rek la ñu wax. Mm. mais nit koo gis tamit am na ku mu topp ndax ñooñu di wax ne ñoom ay sunniye lañ am na ñu ñuy roy. mooy tey diggante sëriñ ak taalibe roy lu baax la. Mm. mooy roy nit ki ci lu baax. waaye doonut sëriñ bi nga xam ne day tënk sa bakkan ba nga bàyyi say waajur wala nga nekk ci li nga xam ne du lu la jëriñ da la koy won comme man rek mais lu ñu gis mais lu ñu gis si Sénégal fii mooy sëriñ bi dafa lay dafa lay jël nga xamante dafa lay occupé place papa ak yaay mhm. nga xamante ne li nga am sax mhm. dootoo ko jox mhm. say waajur sëriñ nga koy jox est-ce que loolu méngoon nag l'islam waaw ñun xamuñu loolu ndax ñun Mawlaaya Baay Mouhamadou Muxtaar Ka dafay nettali ci benn benn ziara mu ne nit ki munoo doon taalibe bàyyi ñes wala nga doon jullit sax mm-hmm. tudduwul da ngaa am ndigal ndax taraxatu tijaaniya munoo ko jël te amoon ndigal waajur mm-hmm. waaw loolu loolu précepte la ci taraxatu tijaaniya mm-hmm. munoo ñëw tey nga ne ci sëriñ bi damay jël laazim te moom da lu mu lay njëkk laaj mooy ndax am nga sa ndigalu waajur ba pare tey soo ñëwoon di tarbiya dana sunna dafa dafa wane ne da ngay laaj ndax say waajur d'accord nañ lépp loo gis nag ci àdduna dafay am ñi nga xam ne xëy na dañuy génn le contexte jëfee li nga xam ne ni waaye Baay Ñas ku ko ku ko ku ko gis rek xam ne ne moom léppam diine la Seexu Tijaan def ne moom jël na ñaari tànkam yi benn bi mu teg ko ci sun na mooy kenn mënu doon tijaan te nekkoo sunni ya mm-hmm. kon jàngale bi day ñëwaat rek ne mooy tey soo ñëwee génn context bi mooy yare keneen ki neneen wan ko sa bopp loolu ñun xamuñ loolu wax dëgg yàlla mm-hmm. ñun sëriñ biñ àndal lim ñi xamal mooy liggéey jaamu yàlla ak fonk suñu waajur mais kurus yi nga takk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. amul fenn bu mhm. ma gisee man mhm. ci alxuraan wala sunna doon na yor kurus bañ na ko sax ba ni boo doon tasbiix di wax subhaanallah di wax loolu da nga abduha bil anamil konte ko say bàgga say say baaraam léegi bu demee nga gàndoo benn kurus sa loxo su benn kii loolu loolu lan la konte kaay la kurus waa mais waa mais waaw mais lépp looy def da nga wata ci sunna yonent bi dafa ne taratum fiikum amrayni ba may dem bàyyi naa ñaari mbir alxuraan ak mhm. ba buñ demee ba nit ñi nii ñii di yor kurus mhm. sa baat mhm. benn bi sa loxo foo foo may foo may layle loolu ci alxuraan ak sunna waaw xam nga xam nga diine tamit nekkul cantonnement nekkul du cantonnement cantonnement mooy mooy nga nga tëju fenn rek diine dafay évoluer tey soo xoolee. mais mais lu mu ëpp la texte yi tamit dañ koy waaw fa laay fa yow mooy tey soo jëlee ci jamono yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam da nga doon gis ne suñ daan julli ci ay der la ñuy julli ci der mm. maanaam. ci der la ñuy julli pourtant tey suñuy julli dañuy julli ci ay nat yu rafet. moquette yu rafet moquette yu rafet. mais lu amul lu amul benn relation ak diine. waaw dama lay dama maa ngi ñëw parce que maa ngi ñëw nga julli ci suuf. Mhm. wala nga julli ci moquette wala deru xar wala nangam. Mhm. donc foo jullee baax na. Mhm. al al al muhim mooy lu important mooy. tisbaar bu ko def lëpp ñeenti rakk. takkusaan saan ko def lépp ñeenti rakk. mais nag donc man li ma laaj mooy course bi. waaw waaw fa laa ñëw ak yow maa ngi ñëw. bu fekkoon problème c'est quoi waaw foofu laa ñëw pourquoi tu poses la question. bi daf lay wala. non non non déranger wu ma mais damay laaj. question laa koy posé waaw loolu laa bëgg ñëw ak yow. Mhm. tey roy lu baax. Mhm. xam nga tey di nga dox nga daje nit ci mbedd mi mu sol ay chaîne. Mhm. loolu lislaam def ko aaye. mooy góor di takk ay jaaru di sol ay chaîne. maanaam yaa ngi dégg fi may waxee. et tey kon soo gisee ndaw. parce que man su ma jëlee tey suma course man je me retrouve plus que ci course bi may wékkoo que par rapport ak chaîne bi nga xam ne dama ko jëndee lu cher ba pare di ko wékkoo mm-hmm. ba pare diine xalab ma ci loolu ndax lii amul fenn foo xam ne mën naa jàpp ne fi ñu bind ne kurus baaxul ñu koy wekkoo xëy na nag tradition da ngay dégg ñi naan xale du wekkoo kurus waaye nag mm-hmm. attention ban xale moo wekkoo kurus mm-hmm. ndax tey suñu gisee jamono nu mu tewee nga gis tey ay ndaw ñu waroon nekk ci leneen nekk ci loo xam ne yàlla gërëmu ko bari na mhm. nga gis ndaw boo xam ne ni tey dañ koy jël comme exemple mu jël kurusam wekkoo ko nga xam ne ni kii lii def ko jël comme viatique jaamu yàlla mooy moyen la rek pour tudd yàlla mhm. tey su ma neexoon léegi mën naa ko dindi teg ko ci table bi mhm. su ma neexoon jël ko dugal ko ci sama saak waaye lan la mooy daf may jokkale mhm. ci jokkale bi ban gën ma jegal sama borom donte tamit mën naa compter sama loxo mhm. mën naa compter sama loxo mhm. waaye nag loo gis lu baax dañ koy roy ci roy lu baax la rek parce que yaakaar naa ne fekkoon jël kurus di ko wir daa dafa xaraam wala mu bon Cheikhu Tidiane du ko def déedéet du ko def de Cheikh Ibrahima daana gàccoo kurus comme nii parce que dégg naa ci bàyyi Euh, Barham Diop yàlla na ñu ko yàlla fayal. amiin amiin euh, muy wax ne. Mhm. Euh, Maulana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass bu mhm. daan jëfandikoo kurisam pour wasifa wala laazim. Mhm, da koy denc bu ko bu rek da koy di dencal. mais est que exposé bi du du du waroon loolu. waaw loolu loolu mooy li ma lay wax rek mooy lépp loo gis dafa am évolution. mais li am importance mooy ki koy def lan la ci jublu. est-ce que lu baax la la ci jublu hmm. wala lu bon la ci jublu waaw waaw kay loolu moo am solo hmm. parce que lépp dañ koy jël ci contexte bi hmm. tey Cheikh dafa doon jëmm bi nga xam ne ñëpp war a mën a jëriñoo ci moom te moom néewul ki nga xam ne tamit li ma waxoon sànq dafa cantonné wu Baye Niass dafa ouvert mooy bépp xeet rek mën na jëriñoo ci Cheikh Ibrahim tey soo demee dañ jàpp ne Weko Kuru Sénégal rek la am déedéet tey soo demee Ghana da nga fa fekk ay taalibe Baay Ñas yoo xam ne dañuy wekkoo kurus mais ñu wekkoo seen kurus ñoom fan la ñu dem loolu moo ëpp solo est-ce que man damay wekkoo suma kurus gi dem dugg ci baar bi wala damay wekkoo suma kurus bi dem ci li nga xam ne ku ma fa gis xeeb ma xeebaale sama sëriñ mbaa di wax lu sa yoon nekkut wax lu sa yoon nekkut yàlla sax xam na ne ñun yarewuñu noonu ñun moom moment bi ñuy am sax pour temps de répit suñ ko liggéeyu day fekk ñu ngi tudd yàlla salaatul faate duwut luy jóg suñ gémmiñ kon loolu kese la waaye duwut loo xam ne lu xalab nit la mooy lu bon la mm-hmm. Baay nag am na loo xam ne lu bari du loolu kese am na lu bari Cheikh Ibrahim daaw koon def mm-hmm. te ñu ngi koy def tey waaye lan lañ ci jublu ndax lu rafet la wala lu bon la mm-hmm. fekkee lu bon la dañ koy xalab fekkee lu rafet la dañ koy gërëm loolu rek la waaye oustaz oustaz yaa ngi may tooñ de man dama posé sama question nga orienté ko ba yóbbu ko ci lan mooy tarbiya man lan mooy maarifa laa laajte. dëgg la lu may maarifa man man yéen ñaar ak may tool <laughs> parce que man maa la njëkk a posé question nga dem rek parce que oustaz neen yéen dama bëgg naa xam. macha allah amee maarifa dëgg la ñu jégalu. Mhm. xam nga am nga maarifa mooy tey su la yàlla dimbalee. nga doon jullit. Mhm. nga doon tijaan. Mhm. nga jël wér de tijaan nga tarbiya. ci tarbiya xam yàlla boobu mooy ubbeeku boobu ngay am farxu boobu ngay am. ci loolu la ñuy tuddee maarifa dafa doon loo xam ne xam-xam la xam-xam mu baatin la. <clears throat> mooy xaqiqa la maanaam. man lii man lii man lii mën ma ko comprendre ay xam-xamu baatin. Mhm. xam-xamu xaqiqa. mais xam na wala amul déjà. man aw ma. am baatin ah, amul. yàlla wax baatin amul dafa nànk dafa nànk mais lan mooy baatin. baatin ay baatu arab la ay baatin ak ay zaahir ak. ay mhm. a axir. Mhm. ay baatu arab léegi man xam signification. waaw mais waaw baatu mooy lu nëbb la par exemple lumière. baatu mm-hmm. baatu baatu français la mais bu baat bi yëg rek. Mm-hmm. c'est am na lu muy jëmmal. Mm-hmm. xam nga donc bu baatin amee. xëy na am na lu muy jëmmal loo xam ne mënoo ko teg bët. xam nga yàlla xam nga yàlla moom mooy al awal mooy ko njëkk. alaaxir. kenn fi njëkk ñëpp créé lépp. mais baat la maa ngi ñëw. moo la al awal ma ko. alaaxir moom moo fi mujj. bu ñëpp demee moo fi mujj al-zahir moom mooy feeñ. Mhm. mais xam nga buñ ne yàlla mooy feeñ feeñul ci doo gis yàlla nii. Mhm, jaxaran jaxaran doo ko gis. Mhm. ah gars yi neen doon koy gis. déedéet ba si amul ku la wax gis même yonent bi sallallahu alayhi sax. am na ñu werenteem gis ko. am ñu ne gis na ko ñu ne gisu ko. waaw yàlla bi lay jàpp waaw maa maa maa maa zahir al baatin mooy lu nëbb. xam nga yàlla dafa nëbb kenn mënu ko gis. léegi nag xam yàlla xam yàlla man dama jàpp ne yàlla maarifa baatu baatu xam yàlla baatu arab la mais yàlla mën nga ko xamee ci ni muy bindee asamaan ni muy bindee suuf bindee doomu aadama mhm. mais yéen ban façon xam yàlla ngeen wax waaw xam nga xam nga tey xam nga wax waxu maarifa nga indiwaat ko foofu maarifa mooy xam yàlla pap xam nga tey pap pap maarifa mhm. mooy xam yàlla mhm. maarifa mooy xam yàlla mooy xam yàlla ci arab baat arab la waaw mooy xam yàlla waaw xam nga léegi ma sa question ay wax xam nga li may dimbalante ak yow ci loolu mooy lan mooy tey soo waxee baatin amul dafay xaw a doy waar parce que waaw waaw am nga ci droit. loolu convaincre ma baatin am na. dama la koy nangul. Mm-hmm. xam nga tey soo xoolee Cheikh Ibrahim Niass. Mm-hmm. c'est presque 500 millions de talibés. à travers mm-hmm. le monde. ñëpp xam ne Baye Niass dafa indi xam-xam bu sell. ñoom la ñu woowee peut-être ñi nga xam ne ay maarif ay ay ay borom xam-xam lañ ay ma dañoo xam maarifatu billaahi est ce pas. doon ay enrifi billaahi noonu lañ leen di woowee. tey soo jëlee tarixatu Tijaniya faydatu Tijaniya dafa am. du baay boobu nag ci loolu lañ tënk ñu ne ñii ay enrif lañ maarifatu billaahi la ñuy dund ginnaaw ba ñu xamee yàlla xam yàlla bi ngay jàpp mooy yàlla doonul jëmm boo xam nga da ngay dox fii ci jaay ko te café bi nga fekk foofu mu ngi mm-hmm. dafa dajal lépp mm-hmm. lépp loo xool rek yàlla jëmmam ji da ci feeñ mm-hmm. lépp loo gisati rek yow da koy gisee ci jëmm yàlla ji ndax amul dara lu génn yàlla loolu moom kenn du ko werante moo tax nag ñu naan maarifa dañ lay yar ci xam-xam bi nga xam ne dara génn ci sunna nekkul loo xam ne da ngay ñëw ñu ne la yonent bi wax na lii waaye lii nii war a demee nii nii la war a demee déedéet comme tey dañ lay indil aay alxuraan nga am ci beneen dégg nga am ci beneen dégg bu bu goo xam ne moo gën a profonde par rapport ak yow fi nga doon gën fi nga ko doon déggee tey soo jëlee bàññis maanaam taalibe mi xam nga yow yaa ngi pratique taalibe bàññis yi tey su ma la doon wax ban jugement ngay def ak ban analyse ngay def ci ñoom par rapport ak koo xam ne xëy na nekkul taalibe bàññis lan nga tontu dañoo bëgg bàyyi benn. ndax bàyyi mataar ka doon na wax ni bëgg mooy lépp. mooy lépp mooy yàlla yàlla bëgg bu mu mm-hmm, mm-hmm. ci la créer àdduna. waaw ah, dëgg la ñu comme ñu bëgg ñu bëgg tamit alxuraan nañ. Mm-hmm. ñu bëgg sunna nañ. ñu bëgg zikar nañ. ñu bëgg lu baax nañ. ok alhamdulilah kon tontu nga lépp. loolu lépp nag moo dajal. ko ñoom taalibe bàyyi ña si lépp lu ñuy def rek dafa fay doon li nga xam dañ ko tënk ci sunna. tënk ko ci sunna mooy itam mu doon xam-xam boo xam ne day dimbale nit ci sellal ci diineem mais tamit dimbale ko ci mu xam àdduna xam nit fan la képp koo gis nga mën ko jox cër képp koo gis nga mën ko fonk mooy bëgg nit ci so cosaan ni ko yàlla bindee parce que soo gisee nit xeeb ko rek parce que da ngaa defaruwut dafa am ci benn benn benn ko boo xam ne loolu foog ñu fóot ko foog ñu defar ko defar boobu nag loolu mooy indi tarbiya mooy tey nga gis sa mbokku jullit nga xeeb ko yow jàpp ne yow kii yaa ko gën bàyyi Mouhamadul Muxtaar ka nafalaa barikaati dafa am wax bu am solo bu muy wax mu ne nit ki su génnee buntu këram ba mu yegg mu ne muus bi ngay dajeeg ci mbedd mi sax jàppal ni muus boobu mën na la dimbale mooy moo la gën jàppal ni muus bi moo la gën donte parce que loolu day wane nite ndax yàlla lépp lu mu bind nite ci gën a kowe waaye nag nit mën na wàcc ba tolloog mala wala sax mala tane ko mooy tey da gis ni ci yenn jikko yi nga xam ne lii mala du ko def loolu nag moo indi xam-xam bi nga xam ne bàyyi indi la yow yaay yàlla man loolu daf may déranger yow sa ah, jëmm ji sa jëmm ji yàlla la ya man gisuma koy wax loolu de mais am na ñu koy wax am na am na am na ah, taalibay bàyyi koy wax man naa am léegi ma jox la benn exemple tey mës naa dégg Baye Makhtar Ka yàlla ko fi yàlla bàyyi amiin amiin amiin guddal fanam macha allah li mu liggéey lislaam mu ni euh, sàngara sax mhm. ci la ñuy xamee jëmm yàlla ji mhm. ban sàngara la waaye maa maa ngi expliqué muy analyse mu ni boo génnee lépp ba ndox bi des mhm. ndox bi rek boo ko xoolee moom mooy Euh, jëmm Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam loolu sa ma koy noo ma koy commenter. <laughs> waaw xam nga xam nga xam tey moom dafa am ci ay <laughs> waxu tolluwaayu sëriñ bi foo xam ne. Mhm. man day jafe ci man pour mu commenter ko. Mhm. ndax taalibe laa rek. Mhm. moom xëy na yàlla dimbali na ko mu doon borom xam-xam bu sel lu wér boo xam ne tey yegg na foo xam ne su waxee xam-xamam du wut lu ñu mën a weddi ndax diine doo weddee ni déedéet li wax du dëgg. da ngay weddee nga indi nga indi nga indi masala. nga ne lii nii nii la ma nii laa ko gisee man. damay ànd ak yow li nga wax sax parce que moom nee dugg na 144 xalwa. Mhm, mhm. mais 3 xalwa nag la def la def 3 jours. dëgg la loolu am na. loolu am na dégg dégg naa moo ko. Mhm. 144 xalwa. ndax loolu yëpp loolu te adduna ba am 60 ans. 30 ans da yàlla la ko def dëgg la. dégg naa moo léegi nag sama question mooy kañ ngeen tàmbali ziar bi. waaw ziar bi nag depuis 9 ans ñu ngi koy def. waaw ci ziyaara boobu noonu laa bëggoon ñëw sax ndax solo ziyaar dafa am fu mu commencé. Mhm. ndax ñun dañu ànd ak sëriñ boo xam ne doom la ci bàyyi Mouhamadul Muxtaar Ka ak yaa umulaari fina mhm. mu doon boroom xam-xam jànge Soudan jànge Égypte doon théologien kooku noonu mooy bàyyi Baaba Muxtaar Ka mhm. mën nañu wax ne spécialiste la en science islamique ñun aussi ci côté daare bi jàngale bi muy la ñu ci ëpp wax naa la sànq je suis cadre administratif mooy ñi muy yar ñëpp ay boroom xam-xam lañ ñi nga xam ne dañoo am ay responsabilité soo demee foo mënti dem ci Sénégal wala Europe di nga fa fekk ay ndawam États-Unis Suisse fu nekk ci àdduna bi Brésil ay ingénieur ak yëpp mais lan la leen di yar mooy ginnaaw bi ñu doonee jullit doon ay tijaan doon ay taalibe Baay bokk ci Baay Muhammadul Muxtaar ko mu yar leen ba nit su leen gisee mën leen bëgg man leen man man man leen fonk waaye yarewut ay taalibeem comme ni ngay wax sànq mooy yenn yenn écart yi yenn écart yi nekk ci li nga xam ne mënoo ko justifier ndax lu dul dëgg moom kenn mënu ko justifier nit li mu mën a justifier mooy lii dëgg looloo gën a looloo gën a yenu maanaa moo tax moom chaque jour rek def naa ni jaamu leen yàlla liggéey leen jàng leen parce que adduna toll diine lislaam toll na foo xam ne ay borom xam-xam la bëgg mhm. waaye nag ci bépp domaine mhm. mooy ci administration ci ingénierie ci science ci lépp ci astronomie mm. loolu la diine lislaam bëgg moo tax moom def ñoo yar ci ci ci ci ci loolu noonu. li dëggal dëggal lag nag li Baye Baabo Baye Maxtaar wax rek mm-hmm. ne Baye Baabo ngeen ko wax sëriñ balaa muy am njariñ dëgg la macha allah bu demee ba am njariñ ngeen doo ko wax sëriñ dootul am njariñ ok loolu la ah. sax ndax moom da mm-hmm. loolu day wax sax ne moom magu taalibe la moom ñuy dimbalee ci ñun ci suñu jaamu yàlla def naa ni man seen magu taalibi laa doonuma seen sëriñ mm. kon loolu rek day wone ne moom borom xam-xam la waaye boroom xam-xam bu sell la ziyaara bi ñu ngi ko commencé tey lay am 9 ans ci année bii nii ba ñuy njëkk di ziyaara ji ba ñuy njëkk di ziyaara ji suñ la waxoon li mu yóbbu sax ci sang bi day woon bëgg rek moo am solo mm. waaw ndax loo loo loo defee bëgg rek mm-hmm. yàlla fekk si la ci mm. mu yokk mais mooy temu lan mooy temu ziyaara bi ren bëgg rek bëgg mooy tem bi <laughs> bëgg rek bëgg rek ci la ci la ci la ci la Baye Makhtar Ka wax ne bëgg mooy pepp yàlla bi nga xamante ni ci lay ji waaw ci lu mënta am léegi yan gan ngeen mën a xaar ci ziyaare bi ña ngeen war a xaar ñu ñëw ci ziyaare bi waaw gan yi moom mhm. yaakaar naa ne dinañ jógee fu nekk ci adduna bi ndax wax naa la ko sànq mhm. yàlla dafa def même ziyaare daaw bi am nañ suñu mbokk yu nekk États-Unis yi nga xam ne jàllale nañ ko foofu ci rajo rajo rajo New York ak yeneen ak yeneen mhm. donc pour wax leen moom taalibe fépp ci adduna bi ñu ngi ci xaar waa Brésil di ci xaar waa États-Unis waa Europe di xaar aussi la sous-région waa Ghana di xaar ñëpp ndax am na yàlla dimbale na ko mu am ay taalibe yi nga xam ne sax ñu ngi Ghana ak ak feneen ak feneen ay xarit yi nga xam ne ay taalibeem lañ nekk ay Ghana nekk Mauritanie nekk Gambie nekk fépp kon daal jàppal ni genre bi international la. macha allah ñu ngi ciy woo mbokk mais benn question balaa ngay dem parce que damaa dégg Baye Makhtar ka ci moom lu am solo. Mhm. yaa amul ku ko gën a jege mujj dund bàyyi ku ko jox weert bàyyi moo ko mujj jox werd mu wax ne ci ijaazam bi nga xamante ni bàyyi moom la bind loxoom ci lay joxe ijaaza moom ba pare mu ni bëgg nga wax ma tuuti ci umul arifin mooy kan waaw kay ah, comme ni koy waxee mooy yaayu arifi waaw moom nag mu doon ndeysaan ku ku doy waar ndax dafa dafa jaay léppam ci lislaam mu doon jigéen gi nga xam ne tey dundee ñaqam mhm. loolu lañ ko lañ ko xamee ndax dafa ànd ak góor yàlla bi nga xam ne moom addunaam bi yëpp def ko jox yàlla ndax wax nga ko sànq mhm. koo xam ne presque cinquante cinq mu ngi ci yoonu tarbiya koo xam ne def na presque plus de trente euh, cent cinquante xalwa woo trente ans mhm. kon koo kuy ànd ak moom rek da ngay doon ki nga xam ne ku sel nga ku ku ku ku ku baax nga ku xam lu lu lu diine def la nga nga koy digal tey soo demee Mboro ay tool la fa am di fa jaamoo yàlla dafa liggéey moom mooy moom mooy jiitu ci liggéey bi ndax dafa toll dafa bokk ci lu gën a sell mooy bay muy bay di ko dundee di yar ay taalibeem ci li nga xam ne mooy jub ak sell ak jàng alxuraan ndax soo demee Mboro di nga fa fekk daara bu mag boo xam ne xale yépp mokkal nañu alxuraan foofu la moom moo moom moo fa nekk def fa ay kilifa nekk ak moom foofu ñuy jàngal xale yi su leen yaree ba pare tamit duwut ku leen di bàyyi ndax da bi fan lañ nekk di leen dimbale jël ay taalibeem def ay boutique bari na tey boutique ci biir dakaar ak feneen ci région yi yi nga xam ne ay taalibeem la jël jox leen ay boutique ñuy jaay di jëriñu di jëriñ seen i waajur kon kooku kooku kenn amul fayam yaa laa refi ziare bi kañ ak fan rek après Pape Sidi incha ñu xool ah, ziare bi fan la ak kañ la bi nag ñu ngi leen ciy woo sax bëgg nañ ngeen teew Pape Sidi le 5 la incha allah mhm. euh, le 4 bi la ñuy def hadratul juma général mhm. foofu noonu ci ci faja Mm-hmm. mais le 5 lay programme bi commence à partir de 15 heures au niveau des parcelles Assainies mm-hmm. unité 14 ci terrain bi waaw foofu lañ koy defee ñu ngi ciy ñu ngi ciy woo El Hadj Ndiaye di woo soxnaam isim di woo ñëpp mm-hmm. di di di sant di leen gërëm ci ci dalal bi ngeen xam ne ne tamit taalibe la boo xam ne ne aw allio bi soriwul waaye di di di di di rafetlu seen xam-xam di di leen sant di sant sëriñ bi Mawlaaya Baay Baaba Muxtaar Ka di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla yokk ko kàttan di nuyu sama sama sama mbokk yëpp lingeer gi ma bokk nuyu naa leen bu baax di nuyu sama waajur bu jigéen nuyu samay xarit di nuyu itam sama mbokk taalibe yi ak fu ñu manti nekk ak sama collègue yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ci kudd jërë ngeen waaw Patre Pape Sidi macha allah euh, waxtaan woowu moom defe naa amaloon nañ ko fi daaw mhm. ak euh, sëñ Malal mhm. ren nit ñu amalaat ko yàlla nañ ko teewee ay at yu bare bari bari ngir di ci mën a def suñu kéemtalaay kattan njabootu Baye Makhtar ku nekk dégg na mhm. mbaa mu gis euh, teggin gi ñu am ak euh, yiw gi ñu am te loolu ñu ngi ko inspiré woo wala ñu ko jëlee ci seenub sëriñ yàlla na ko fi yàlla yàggal amiin amiin continuer di def lu baax li muy def amiin amiin ñu dem seeti euh, maam maam Cheikh bu Diop mm. moom it am na waxtaan moo bëgg a seq ak moom macha allah Cheikh bu def nga tawassul ci borom Ndiassane doo ma ci may ñaari kàddu rek ci kaw ah, waaw ñaari kàddu rek <laughs> الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله أبيد لا يقين رك فناه donay bu naa mayaay sama péete sëriñ si ñëpp laa jox ma man duma tooñ wali yu lor ma waaye bu ñëpp defoon rankarma donay bu naa mayaay sama pété macha allah sa première question mooy est nit war na def tawassul ci sëriñ wa nga may orienté ci cinq question bi nga laaj sama bopp ni ko luy baat baatin maarifa la papsi di njëkk a laaj baatin moo lay indi ci maarifa ci ki sawar li nga xamagul lépp sa baatin la mais noonu li nga xamagul da ko réere la mooy li nëbbu non non da ko réere mooy li nëbbu mais boo xam étymologiquement non non mais non Pape Sidi da nga ko réere mais boo xamante nekkatul baatin waaw déglu baatin mooy loo xamante doo ko gis nañ nañu dégloon parce que ni ngay laajee daf ma neex da ngay tax nit génne li nekk ci moom mm. c'est très important parce que baatin lii ñëw li nga gisagul d'accord nga ci ak man bu baax maarifa mooy tax nit xam mu ngi mel ni xam-xam xam nga tey jii man ak yow ak Pape Sidé sama mbokk mi mm-hmm. kenn ku nekk li nga xam bokkul ak li sa moroom xam te xam-xam bu nekk am na xam-xam bu ko féete kaw mm-hmm. lu waa ji bari xam-xam xam-xam aalim la mm-hmm. waaye ki xam kenn la mooy yàlla mu baaxe yoonu ci yàlla Muhammad xam-xam yoon ci yàlla Muhammad xamal nit ñi moo tax inna allah alimun bi zaati sudur yàlla rek xam li nekk ci dënn yi koo koy ki aji xam keneen ku mu doon dañ laa xamal léegi ci pas-pasu baatin boobu nëbb su fekkente ni yenkeew na la dara nga nangoo góorgóorlu moo lay indi sa it te yóbbu la ci xam kon nag dajeeg nit ku baax sànq laaj nga ko sang bi pour mu commenter waxu Baye Makhtar mu ni la moom ci tolluwaayam man ak sama tolluwaay maam Serigne Touba jàngal ñu ko nee na waxu gaa yu baax nee na bul ko commenté xam nga nooy def da ngay wax la Abdul Wadud waxoon mu ni nga ni man may man ñoom ñooy ñoom kalaamahum ida daaka ya balid fa xul kama xaala zaki Abdul Wadud kalaam al awliyaa yi lastu afhamu li annani ana ana wa hum humu bu ko defee itte boobu nag mooy indi yow nga def tawasul xam ba xam jeex xam sa ci gën yon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy buntu xam ci tagg ko gis nga ni ñu bari ci la nu jaar ba am li nu bëgg xasan ibnu sabit taggkatam ba waa imam busayri mi fekkewul jamonoom nag doonte am nañu busayri neexul te ñu tëju imam boo say la ko bëgg loo yonent bi sallallahu alayhi wa ba muy def tawasul ci moom moo ma bëggloo sama sëriñ ba may def tawasul ci moom am na ci droit te boo ma koy woo daf ma ràññeeloo daf ma teel a xamal ni fooy wute dara ci man booy jeexal sa kàddu nanga ma wax ni bokkaale ma dara ak sa borom. teguma kenn ci place yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ku gëm sa barke la. kon teggi ni tawasul la ñu war a jàngale. waaye tawasul lu am la. mais damay dégg damay dégg ay borom xam yu contour tawasul ci ne dañ ne si si si ragal yàlla ndax yàlla moo ne yaa ayyuhal ladiina aamanu. ittaqullah wabtagu ilayhil wasiila. naam ñu ni ci ragal yàlla ngay tawasul wala sa jëf ju baax. ci ngay tawasul. mais di tawasul ci nit. est-ce que loolu l'islam am na fu mu ko saxalee ci alxuraan wala sunna. Oh. man gisuma ko ci alxuraan gisuma ko ci sunna. d'accord bari na loo gisul ci alxuraan ak sunna te mi ngi am. mais wax ma tawasul ci wax ma foo ko teg. waaw fi ma teg tawasul mooy ci bëgg. ci bëgg bëgg bëgg. bëgg waaw te yow yaa wax ne bëggee lépp. da ngay bëgg nit rek fii ci àddina léegi nga wax ne yàlla bu ñu bëggee àdduna da ko da ngay bëgg nit rek fii ci àddina mhm. ba mu jaral la yére bu mu sol nga sol bu bënnee sa nopp nga bënn noppam waaw la waajay daj ca loolu te àddina rekk tax mhm. man bëgg gi may bëgg ci nitu yàlla mooy bëgg gi mu bëgg yàlla mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall na di dox di waare ku la gis waaroo ko mhm. pour ca na mu mel mu sóob ma ca toppandoo ba toppandoo jeex toppandoo ku baax ci gën te toppandoo la rek def ma ni nga mel ci gis benn téer yaru saalihin mu am ñett yi doon dox ba dugg ci xuntu ba ñu duggee benn xeet daal di mur xunt bi mm-hmm. boo mu ko muuree kenn ku nekk waxoo man sama bëgg de mais ku nekk dafa tawasul ci yàlla jëf ju baax bi mu defoon ah, ku njëkk dafa wax rek benn parti xeer bi ubbeeku kenn ki waxaat benn parti bi kenn ki waxaat ci ñoom jëf ju baax dañu def mais waxuñ ci bëgg bëgg rek bëgg rek ñooñu dañoo baax maa maa ngi ci benn mbir bëgg naa rek dina ñëw mani ah. mani ñooñu dañoo baax man convaincre ma wuy ma ñooñu mm. dañoo baax mm-hmm. ñu def tawasul ci seen jëf ju baax man damaa gis ku baax ma def tawasul ci jëfam ju baax ndax dégg nga ma mhm. ñooña dañoo baax àgg ci mbaax du ñooy ña duggoon ca xantuwa mhm. te xeer ba tëj leen kenn ku ne wax lu baax loo mës a defal yàlla mhm. bu foofu laa bëgg a àgg mbaa def ko te yàlla rek tax foofu laa bëgg a àgg kii nga gis nag te mu wóor bari na koo xamante ni ma ngay bañ tawasu dafa dajewul ak nitu yàlla déggoo boo koy ñaan dafa am teggin doo ko wax yaay yàlla déedéet sooy jeexal nee naa li mu ñu jàngal bokkaale wu ma dara ak sa borom teguma kenn ci place yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ku gëm sa barke la déggoo ma ni su may way soo déggee sama way rek tawxid lay ubbee teg ci yoon ci yàlla muhammad sànq bi nga nee ma am na tawasul boo def ci borom njaasaan mm-hmm. bu ma tëboon way rek def tawasul bi mm-hmm. su boobaa tontuwuma la la baatu yàlla laa ubbee de mhm. teg ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa door a wax li mhm. amul fenn fu ma sañ a dem lu mu xat-xat te doo ubbee turu yàlla teg ci yoon ci yàlla muhammad door a woo sa sëriñ te bi di ba pare dégg naa tamit sa biir way nga def istixaara sëñ bi nga ni ko ah. yow yaa ma tànnaloo ma def ko Dakar ah. delloowaat naa ko Njaasaan ci dootul génn man mi la tàggu woon bis macha allah mhm. yóbbu ko biir Ndakaaru def ko juróom yu teg ñaar ci at sa barke sëñ bi bis booba laa ñëwaat ren ñaan ci sa barke sampom te dootu génn njaasaan fekk maa ngi dund sëñ bi woyal ma ko lu mu commencé man mi la tàggu woon bis yóbbu ko biir ndakaaro def ko juróom yu teg ñaar ci at sa barke sëñ bee bis booba laa ñëwaat ren ñaan ci sa barke sampoom te dootu génn njaasaan fekk maa ngi dund sëñ bee loolu it dafa am histoire dañu fi nekkoon ñu bëgg ñu tëj ni ma ko mën a waxee ñun ñiy tàgg yonent bi c'est-à-dire boole ñu ci benn néeg rek mooy bu jàng jotee da nga war a dem ci tànt yi jàng wolof dafa ni miim du ragal dafay dindi tuuma dama bëgg a wax nii dañu am euh, ouverture comme ni ko nit ñi amee waaye fekk na ñu am enracinement ni ko Léopold Senghor Senghor waxee woon. Mm-hmm. mais mais ba ngay def grand théâtre 2013. waaw kay di fayee ko. loolu da na parce que bu fekkoon yonent bi rek tax a jukk ah. loolu lay wax nii. merci indi nga sa question loolu tax ma dañu fi nekk. Mm-hmm. Mm. ñuy tàgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam njëkku ñu rek dem grand théâtre de fii miin naa ko loolu boobu mu ngi tudd studio 2000 dëgg la ñu nekk fi maa ngi nuyu de passage ñoom Alex Ali Diène yàgg na mm. ma ma ma nekk ci di nab na bi mu am lu nekk sa dënn il faut nga génne ko nit ñi xam ko booba bande yaa xew mm-hmm. ñuy lu ñëw fii di def ay bande producteurs yi di ñu produire ngay sonn ba mu yàgg ngay produir sa bopp mm. loolu yëpp itte la de xam nga loola ma xamul woon man sama baatin la léegi bi ma ko xamee lëntatuma ñu nekk ci di nab nabi di nab nabi di nab nabi ba yàlla dogal ñu ñëw ci année 2012 ñu ñëw ci magistère président Macky Sall fekk président ab lay Wade tabaxal ñu grand théâtre bi ñu ko tabaxee yàlla dogal ci jamonoy président lay Wade waxoon nañu loolu ñu ne dañuy def lu ñuy tuddee nuit du prophète ministère de la culture ñoo ko defoon waaye yàlla dogalu ko ci moom. président Macky toog Youssou Ndour maa ngi koy nuyu de passage. suma xarit. yàlla dogal mu mu mu mu mu mu mu nekk ministre de la culture. yàlla may ko mu ni day def nuyu du prophète. ñu tànn fukki nit ci Sénégal. ñu dem Grand Théâtre keroog góorlu naa ci def sama wàll. bi ñu ko defee en 2012 ma lii mën naa ko. salle bi ñu ni cent place lay def je me rappelle léegi 2013 rek ma ni damay jël grand air mu nekk coow nag ma def conférence de presse am na seen benn confrère bu ñëw wax Mbacké dañoo ko ma déglu ko ma wax ba pare ni ñuy demee mu daal ni ma Cheikh tu as bien parlé mais c'est 1800 places hein mhm. ma ni ko attendons le jour J mhm. yàlla dimbali nu ban ci àggee mu nekk guichet fermé booba li ma ci jublu woon mhm. tontu bi moo nekk nii ma la wax bi nu ko defee li ma bëggoon mooy yéen ñiy tàgg yonent bi bu kenn lëndëmal seen xel dem leen ci saal yi ngeen wane nii loolu tubaab di tuddee avoir son public ñun on a notre public mhm. bu nu demee ñu gis 1800 places ñu ñëw taxaw di fay comme ni nit ñi fayee mhm. dina nu xam ni ñun kat suñu publique bi xam nañ ñu te bëgg nañ ñu kaay ma wax la li mu jur mhm. ma def ko 2013 mu fees 2014 rek suma frère Mambay Laay ñëw ni ma Cheikh bu damay def li nga def daal di dem Sorano ñu ñëw suma frère Sat bu Samb gars yi commencé gars yi songu grand terre ngi nii Sat bu day dem suba rek incha allah. grand terre. Mm. ñu def ko nag ñëpp riirandoo bi ñu xamee nii nag ñun am nañu fi bi mujj niñ koy feesalee ñun <laughs> suñu yeneen mbokk yi duñ ko feesalee noonu. mais est-ce que dafa lañ pour pour pour buzz wala. déedéet déedéet foofu laay wax. Ah, sa tonton ngi nii yow. Ah, ah, sa tonton ngi nii nag mm-hmm. mooy sa tontu. Mm-hmm. bi ma defee loolu en 2013. Mm-hmm. lu kenn foogul woon. waa francophonie dañ ma gis. maa ngi nuyu de passage docteur Yuma Atifal lii dafa fekk li ñuy wane leneen li du ñu ko wane lii ma def ko 2013 2014 ku mel ni Pape Sidi xam na lu ñuy tuddee Massa marché des arts du spectacle mhm. africain mhm. francophonie gis ko jël ma yóbbu ma Côte d'Ivoire ma ànd ak sama groupe 12 personnes war na amaat sax bientôt ñu dem stade au fait boigny ma représenté l'islam benn chorale benn chorale bu jógee ca RDC représenté diine chrétienne keroog man maa ko ubbi ci kanamu président Abdou Diouf ak président yëpp. mais ku fa nekk tey sénégalais fierté nga am stade ba àndandoo nga leen di tuddloo yàlla. Mm. yamu fa mu jeex. francophonie kontaan ci man invité ma ci seen siège ma dem Paris. Mm. ñu laaj ma lii ngay def lan la. Mm. parce que li may def dafa ànd ak tabala. ñu ni ma luy tabala. man leen tabala dafa bokk ci sonorité sacrée. ñu ni ma lu tax doo ko rax. ma daan ni les sonorités boo soxla mi ngi ci biir tabala yamu ci ñu daan ni dañ lay dugal ci sunu compilation compilation nouveau son bu 2015 20 nominés yi ñu tànn ci àddina bi man ci laa bokk. incha allah bi loolu amee kon jur na. léegi nag ma def ko di ko def commencé ko 2013. ba 2019. kon xam nga def naa 7 ans. Mm. moo tax ma ni ko def ko juróom-ñaari at. léegi nag ña doon wax ni kii daa ñëw pour wut xaalis ma leen di wan ni dafa am lu ma doon wane. Mm. li ma doon wane togg naa ko ñor na. maa ngi dellu fa ma dëkk. waaw waaw mm. Ndiassane maa ngi dellu fa ma dëkk. Mm-hmm. ñu ni ma dellu fa ma dëkk noo koy tudde al awdat ila al masdar. ma ni leen maa ngi dellu def retour à la source. Mm-hmm. waa ji ni ma lu tax defoo retour aux sources au pluriel ma ni ko sa naanuwaay mooy tax nga xàmme naanuwaay. Mm-hmm. maa ngay dellu ca naanukaay ba. ki nga xam ni fu may dem parce que soo ñemee loolu ku ñemee dañu laa di. waaw mais nga nga nga ndàmpatal waa dakaar lii ba ñu min la ci. ok di la xaar nga xëy rek mu mel ne xale bi doon nàmpal xëy rek bi ji ween. culture nu mu mel. waaw maanaam da ngay wane sa dara nit ñaa ngi wax jaay sa culture. Mm-hmm. keroog ba nu demee Massa palais des arts. foofu noonu euh, dañuy woote addina bi yëpp pour ñu découvrir lu ñu xamul woon ci wàllu musique. Mm-hmm. keroog maa ngi ciy def benn plateau ci benn chaîne français bu tudd Ibis News. maa ngi maa ngi fàtte waa ji mi ngi tudd Jules Rocher. daf ni ma suma suma la miinoon man dina tuub. lii la ma ko parce que daf ni ma ay baat moom li am solo mooy mu convaincre la. Mhm. daf ni ma làkk amul solo yëg-yëg moo am solo. Mhm. gisoo nit boo ko jëlee tey jii mi ngi mel ni ngay mhm. jàngale ñu affecté la nga dem Matam il faut nga dégg pulaar pour xale yi gën a comprendre li ngay jàng noonu laa mel ci doon jaay di wane benn mbir ñun foo ñu fekk mosoo dégg ci mbiru Ndiassane ñu wane ci dara li ci ëpp dañu làqatu maa topp góor gi di ko yalwaan may feeñal dara ci ngi ñaan sa barke yàlla way wi siiw lool ci réew mi ak bitim réew yow doonay bu naa topp ko di ko jooy di jooy di jooy ba mu may ma ma feeñal dara ci boppam moo tax ma am fitu jël grand théâtre macha allah hmm. maa ngi ciy ñaanal suma Serigne Cheikh Seydil Hadji Mame Boul Hadj Mouhamed yàlla na xippee aljanna amiin amiin maam jooju léegi jàngale boobu rek hmm. laal doon wan bi mu wanee nag ñëpp xam nañu li nga doon def hmm. te fi mu toll nii gars yëpp dañuy dellu saa lii c'était pas pour ñun dañ koy jël rek pour def li nit ñiy def dañ ko doon jël pour dindi tuuma jeunesse bi bul xam ci lan lañ ci jël ñun ay jeunes lañ il faut que jeunesse se passe. Mhm. mais passé ko ci lu ko jar. Mhm. sunu moroom ñun suñuy moroom a koy fees. bàyyi ci xel. Mhm. mag ñi dina ñëw jëmmal ñu mais suñuy moroom ñoo koy fees suñu moroom yooyu ku ne am na loo gëm. plateau bii ñu fi toog ay jeunes la. kenn ku nekk am na loo gëm jàngale boobu mooy joxe sa message fi mu waree. foofu la nu ko mën a joxe. looloo tax nag ñu wan leen ba grand terre gis ko léegi nag ñëpp ñu fekk ñu jàpp parce que li ngay togg ñor na. gisoo su may way man sama public ñooy li ngay way ñoo la ko gën a xam. su ma ci fàttee dara ñoo ma koy fàttali mm-hmm. yàlla dafa baaxee bindkat mm-hmm. su bindee ñi ci ëpp du mokkal li mu bind dañ ko koy mokkala loolu mooy njariñal bind mm-hmm. ñu dem ba tàggkat yonent bi yeewu yeew mooy nga ràññee li ngay def dem say œuvre nga protéger ko yenn saa yi nga dem for dara say droit d'auteur kon nag lii ñuy def jàngalee ñu ci taxoon a jóg nit ñi xam nañu fu ñuy tudd nit bu ñu fa toogee war na nañu mën a exprimer wu ba nga xamante ni kenn du duñu beer lii rek laa doon man man lu ma jaaxal mooy jàngkat yi Sénégal mhm. quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi mhm. dañuy jàng di yàq grammaire arab mhm. di jam langue arabe parce que am arabe am na koy waxee rek xamoo sujet xam ko xam complément dina neex mais yaa ngi changé l'essentiel kii bi lan mooy waral lool dañoo dañoo gësuwul wala dañuy jàng dañ day def man katama dégg rek dënd lu waral lool arabe français espagnol anglais. Mhm. am njàng day mokk. Mhm. Mhm. olof pulaar mandeng am njàng day mokk. jàng ak làkk du benn. ki tànn nag ni ma war a wax mbooloo di janoog man. na wérlu li muy wax. bu fekkee da caa am don te fekk jàngul woon. na nangoo laajte ki mel noonu nag warul rëy. li arab la ma bëgg koo xam su ma koy wax ma bañ koo yàq naa ñëw jege oustaz Ousmane mhm. ni ko baat yi nu ñu koy waxee mhm. mu bindal ma ko mhm. ma ni ko soo ko bindee su ma ko bindee ci français damay yàq baat bi mu jël portable enregistreel ma ko wax ni ma jaaraat ci nga jaaraat ci ni ma jaaraat ci nga jaaraat ci mu ni ma jaaraat ci nga jaaraat ci su ma ko waxee mu mel ni man maa ngi génne université dama laajte ku nangoo laajte te am toroxlu laajte mhm. bu yàggee nga xam mhm. mais nan koy wérlu moo gën ngay gaañ ci toog waa ji ndox ko am ku ko dab <laughs> di ko wax ci arab mhm. naan ko góor gi maytul fii gaynde gaa ngi ñëw mu mel ni ku tëx comme ni mu ko koy waxee baaxul ba yàgg góor gi gëdd ko ni ko bàyyi ma gaynde gi lekk ma moo ma gënal arab bi ngay yàq <laughs> noonu la mel. Mhm. noonu la mel ci français noonu la mel ci anglais. Mhm. noonu la mel ci dara dara da koy wérlu. ki mhm. tànn wax mbooloo di la xool yow fi mu toll nii euh, gaañatoo sa bopp mbooloo ngay gaañ. jaajëfal kitaab yi. am na ñoo xamante ne bu ñu nekkee ci dara daf leen di neex. président Senghor gis nga ko dafa bëggoon poésie. soo ci def dara bu yàqoo da koy xam. rawatina arab ban langue moo gën a neex arab. amul dafa riche. français ñu ngi nii ñun dañoo lii rek la am singulier ak la pluriel <laughs> mais arab dafa am duel. wallaahi musanna jamoo. naam mhm. mudaafu lépp am na ko. loolu kon amul langue bu ko gën a neex ci kaw suuf waaye léegi nag loolu dañ koy jàng. Mhm. man miinu ma ko ma damay laajte su ma ñu wax ma su boobaa ma dëgërloo ko. Mhm. bu dee ci français li may laaj tamit dama koy laajte. su fekkente ni la wax nañ ma ko ba mu wóor. Mhm. jàng nga mu wóor laa koy jàng. parce que boobu sax moo gën a metti mhm. nekk naa mag moo bëgg a wax français mais naa ñëw ci Pape Sidi ni ko man de baat bii dama koo bëgg a wax. Mhm. su fekkente ni wax na ma ko ma répété ko su ma naree yàq prononciation bi ma waxaat ko ci kanamam. moom su ma ko wóoloo rek man mën naa jàng. mais am na lu ma gën a jaaxal. mais ces chiffres boobu nga wax yow oustaz foo ko jëlee. si 99 virgule maanaam ban statistique nga def ba xam ne 90. non dafa. oustaz am nga dafa bari moom moom li mu wax nii muy ci milieu bi. moom muy moom di nga jël sa statistique nii 90. dëgg la wal wallaahi muy ci milieu Pape Sidi man ñoo mu ngi ci milieu bi. da gis koo xamante ni. mais pour ñun moom. nice non non. dañu dégg kuy làkk arab sax ñu naan kii alxuraan yi muy làkk neex. wallaahi dañuy jël baytu Serigne Touba wala baytu El Hadj Mal wala Cheikh Ibrahima Niass. dañ koy mokkal noonu rek mais boo ko laajoon lan lan mooy verbe fii lan mooy siise duñ ko duñ ko waaw maa ngi nuyu Oustaz Ablaye Gueye mu ngi nuyu seetaan. merci euh, Pape Sidi lu ma gën a am lu ma gën a métti tamit si jànkat yi. Uh-huh. wax xissa yoo xamante ni amul. jël jël sa sëriñ waxal ko loo xamante ni créé ko loo loo xamante ni amul. Uh-huh. te yamul foofu de xissa boobu la ñuy wax beneen sëriñ wax beneen sëriñ wax beneen sëriñ. c'est la même chose loolu nag sëñ sëñ ah, Cheikh Bou loolu tamit xaw na kii de. Euh, léegi ah, mais Cheikh si bêtise yu ah, ci ci la nekk moo tax. léegi moom moo fi toog que moom moo war a. moom moo fi toog moom laa a dégg mu def benn. nga ne ah Cheikh Bou kat def nga fii moo tax ngeen di def loolu. moom laa koy laaj de. dina ko defal nasiha. waaw moom laa koy laaj de. laye biir. benn mbir rek lay wax. <laughs> mooy. Mm. loo gis rax na. Mm-hmm. ñun ci lislaam lañ ne. di nga dégg lu ñuy tuddee ay israiliyaat wallaahi kon dina am ay <laughs> noonu rek la. parce que kenn ku ci nekk. ak na muy tojee bopp jinax waaye ku nu yar. nga nekk ci tariqa. te xam luy tariqa. ah wax ci ñun de tariqa bi ñu nekk. boo tegee sa tànk première charte bi mooy duma wax mukk lu dul dëgg. borom nee na ndax moo ci gën a siiw. muy Cheikh Abdou Qadir Jeylaani te kat sosul tariqa bi waaye moo ca liggéey ba am turu Jeylaani mm-hmm. te dootul dañ nag mu ni ixlam anna tariqatana mabniyatun ala alkitabi wa sunna mm-hmm. fa man xaalafahuma fa laysa minna nen tariqa bi mi ngi tegu mi ngi ngoyu ci téereb yàlla bi ak sunna si yoon ci àlla muhammad mm-hmm. nee na képp ku fi bàyyi ñaar yi bokkoo ci ñun waay waay waay kooku wàcc na mais way ah? way ak tëgg ak tabala man gisuma ci lislaam fu ñuy wooye yonent bi tëgg tëgg maa ngi ñëw Pape Sidi ah, man waaw maa ñëw man li ma xam hmm. li ma jàng yonent bi fenn rek la mayee ñu tëgg hmm. ay bool ak ay tama hmm. mooy ci mariage yonent mu ne alinu alinu nikaaxa bi duf i duf fi yonent bi wax boo amee ku sëy si ci koñ bi wala ku ñuy takk dañu tëgg loo fiiree adduf adduf mooy tëggukaay rek déet déet bu ko bu ko bu non non exemple waaw boobaa day vague waaw xaaral maa ñëw adduf fu mooy tabala waaw non non adduf ndënd waaw waaw merci d'accord naa d'accord naa moom waaw mooy ndënd mais la ko maye mm-hmm, waaw mais nag ñuy way ku tollu yërante bi jàng alxuraan di tëgg loolu lu ma lu ma jaaxal la mm-hmm. loolu moom loolu moom mooy lan moom mm, maa ngi lay yebal ci Anwaaru Muhammad bu Cheikh Youssouf Nabahani Anwaaru Muhammad waaw nga yër ko mm. sallallahu alayhi wa sallam bi mu déplacé woo kii tidd na léegi Quba bi mu ñëwee ba jub buntu kër Abu Ayyub al-Ansari ah fekk na fa ay jigéen yu yor ay tabala di tëgg Anas noonu la ko nettali daat ni euh, bi du foofin yàqul na ña nga naan nahnu jawaarin min bani najari ya habada muhammadun min jaari ñuy tëgg seeni i tabala Seydi Hadji Malick nettali ko ci xilaasu zahab mhm. amalaaji Malick nee na yaqulna naanu jawaarin daaribaati dufuufin laysa fi darbiha tallahi min idan Seydi Hadji Malick nee mhm. ñu ngi tëgg ay tabala mhm. te nee na maa ngi waat waat ni seen tëgg mooma bàkkaar newu ci bu fekkente ni ci ceet la ankay ah, da leen siiwale seen i sëy ak tabala mais fekk nañ ko bisu feet sax dafa am bisu feet. ci biir kër yonent ci yàlla mais waaw mais xam nga dafa xaydu wax ji. yonent bi dafa ne boo waxoon dafa aalinu umurakum. waaw mais dañuy wax waaw xaaral. da ngaa Sidi dafay wax Sidi Pape Sidi Sidi mais yow man mais mais Sidi man tey da nga ma wax man. waaw ma ma léegi alaay jaa ngi baat arab laa koy wax yéen boo xoon aalinu umurakum ah. wala diinakum ah. yéen boo xoon fësal leen seeni i mbir wala seen i diina ci tëgg ah. mais dafa ko tëgg dafa dafa ko tëgg alxasr dafa ne aalinu nikaaxa bi dof i si si mariage la wax mais nag bu buñ jëlee mariage bàyyi di ay jàng di tëgg tamit di tëgg day mujj sax billaahi wal gis naa gis naa bam si gis naa benn jàng ay tëgg. am la mujj nekk sabar la mujj nekk. waaye Sadio Sène mbar mbaraaki parce que dafa daam daam daam lu yeew ci ñoom. loo gis am na lu rax. gis am na nu koy defee nu warul. Mm-hmm. tabale ya ñu doon tëgg. Mm-hmm. li ma ci ñor laa lay wax. xam nga ni ci sëy la lislaam di yaatoo yow itam. Mm-hmm. bu du woon ak sëy ñun dina nu bari. lu toll ni sëy. sallallahu alayhi wa sallam. daat ni nañ ko siiwalee tabala. tëgg nañu tabala biir këram ci sëy ci biir këram Ababacar ñëw boole yaay Aïcha ak yaay Hafsa mu ni ko daxuma yaa Ababacrin fa innaha ayaamu aydin maanaam bàyyi leen yow Babacar lii waxtuy feet la nga dégg ci yi feet dóor ci tabala jaadu na léegi beneen bi ci des feet boobu ma lay wax na ko salaay salaam fekkewul bi mi ñuy tëgg ankay banu naja ankay da leen a tere déedéet ah. dina fekke sallallahu alayhi wa sallam dina fekke lu jaaduwul te terewu ko parce que way daa ànd ak moom li am solo kay da nga naan am tëgg du jiitu way am tëgg du jiitu du jiitu way way yi mooy jiite tëgg su ko defee mu ànd ak moom kuñ ciy tàgg yonent bi kuñ ciy tàgg waa waaye lépp loo gis nañ koy defin waa am solo da naan nañ ko def ci sell loo ma wax ci tux bi nga xamante am ñu koy tux mi pon waaw kooku kon yëfu nit la. kon yëfu. nit la. Mm-hmm. fecc sax yëfu nit la. Mm-hmm. kenn ku ci nekk ak yëg-yëg bi nga am di ko def. Mm-hmm. bu ñu doxaloon xanaa da nga may wax ni dafa haram da nga mën a indi ci alxuraan. tox dafa haram waaw. yàlla jàpp non dama lay laaj. yow la ñuy laaj yow mi laaj wax nga loolu bokk ci mais da nga ciy dugg moo tax ma lay laaj ba xam ah, da nga gis di fenn fu mu xaraame xaraam na alquran wax ma jox ma wa yuhillu lahum tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith <laughs> kii moo fit ni yonent bi dafa leen ni daganalal lu leew waaw daf leen ni waaw leen xaraamal loo xamante dañ ko sib waaw sone waaw amul kenn ku werenteew ci àdduna cigarette moom dafay lor benn waaw dafay lor sa santé dafay lor sa sa sa sa yàq sa alal. Ah. te lu loo xam di nga ko sib daal ba même boîte bi sax dañ ciy bind day yàq day yàq santé. est ce mënuma wax leen xam nga man mi di wax ak yow du ma tux xëy na yow doo léegi jàngale foofu pour affaire u nit la. affaire nit. waaw affaire nit ku nekk ak sa yëg-yëg. Mhm. am na koo xamante ni. Mhm. su meree tux a koy calmer. am ko am te bu meree fecc rek a koy calme. yéen tamit nee na boo meree. bu fekkee da nga taxaw waaw du boo meree dama jàpp. affaire nit la non boo meree. waaw bul bul désorienté bul désorienté. non Pape Sidi non attends bul désorienté. yaa ngi ci tux. waaw mu ngi lay jox ay raisons. dama dama jox ay raisons raisons man moom laay kat. man boo bàyyi ma raison mu dem. wuy ma demal. Euh, insaanul kaamil. Mm. kooku mooy yoon ci Yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam kooku dafa mat. Mm. yàllaa ko matal. Mm. ñun ñëpp ñi ci des danoo manqué. kenn ku nekk am na loo xamante eh, lu mu moomal boppam bu fekkente ni dañ ni dugg ci xaram moom dinañ fi yàgg kon sànq bi nga laajee sëriñ bi ci kurus màkk kurus fa gën a jar màkk toxo fa ëpp yëfu nit la léegi bis bi léegi léegi bis bi bis bi euh, dafa am ku def benn commentaire dama jaaxal de mu ngi tudd Serigne Fallou Mbacke Massamba mm-hmm. nee na en tout cas Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani wax na ci téeréem bi ñuy wax mu bind ko ci arab ne tabala dafa xarab ah, kooku day ne ko maa ngi koy laaye biir xarama wan la commentaire bi comme ça nga mën a wax ban téere la wax foofu parce que alxuraan la bind téere bi daal anam xarama ma dimbale na ci <laughs> voilà waaw moo nekk ni waa téere bi lii la bind. ci huniya. huniya. ne ko su ma mënee laajee biir mu wax ma fan la nekk ci ci biir huniya. mu ne boo ko mënee laajee biir nga wax ko fan la nekk ci huniya. ci biir huniya de maa ngi huniya. léegi bis bi bis bi kañ la. ah bis bi kañ la jàngi. incha allah kañ la ak loo ciy euh, sëriñ bu baax boobu mhm. wax loolu. Mhm. bi maa ngi koy euh, laajee biir te di ko ñaan. kër yi dañoo jige lool te rafet. Mhm. kër sëriñ Touba. ah ak kër cheikh bu Mouhamad Kunta kër cheikh al Bunaama kër cheikh Sidi Muxtaarul Kuntiyu kër cheikh Abdul Qadir Jeylaani mi nga xamante ni Sëriñ Tuuba tagg na ko tagg yi mu ko tagg ba wax ni yaqulu ahmadul faqirul jidda atuubawiyul qadiriyul wird bind safinatul amaan lil qayifiina lu jëja niira ñu ni ko waaw téere bi fu mu jógee mu ni garaftuhu min faydi bahril jiili imaamina la zalika tabjili ne ko tabale de ci ñun mhm. bokk na ci li ñu gën fonk eh euh, c'est pas parce que dafa bind ne Serigne Fallou euh, Mbacké Massamba la tudd rek xam naa wax ji maa ngi ñëw que que dafa bokk ci fan bi Abdou Kadir Jeylaani lu mu waxul mhm. dafay gaañ bépp xaadir c'est très important runiya la wax te runiya ñu bari ci la ñuy jànge dinaa ko dinaa ko dinaa ko liir ma xool inshallah mango runiya mhm. ñu bari ci tarixa bi ci la ñuy jànge ak yeneen yoo xamante ni bokkuñu ci tarixa bi léegi bis bi dañuy reprendre waxi Cheikh Abdoul bis bi kañ la ak. ne ko maa ngi koy wax loolu pour mu teg ko ci suuf parce que man maay taalibe bi gën a tuuti mais loolu bu ko samay kilifa déggee du ñu waxee nii may waxee. bis bi bis bi bis bi kañ la ak euh, loo ci préparé ak lan mooy thème bi wala amul thème. bis bi macha allah. mu ngi war a doon le 5 mars. ma tombeeg sama seet bi. <laughs> macha allah le 5 mars incha allah ca Ndiassane. macha allah bis bi nag. ñun ba ñu ko commencé 2020 la ñu ko indi Ndiassane 2020 lañ ko indi Ndiassane daaw yàlla indi gàllankoor looloo tax fa tabaarakallaahu defuñu ko 2022 bi nag ñëw ñu koy defaat ba ma koy def daaw toujours pour war la jàngale ba ma ko mësee def tamit grand théâtre ba tey mësul am ñaari parrain benn parrain la mës a am alhaji maam bu Mamadu yàlla dogal mu génn àddina moom mooy continuer mooy parrain éternel bi li ko waral moom mooy way juróom bi ko jur di alhaji Mamadou mm-hmm. moom mooy sëriñu maam bi jur sama yaay benn marraine la mos a am bàjjen Lalla bintu Cheikh Abdourahman bu lu ko waral way juram mooy sëriñu maam bi jur suma baay daaw ba ma daa ba ma koy def mille vingt dama ñamat ci doon fàttali mooy sëriñ Saliou Mbacke ak Cheikh bu Mouhamad Baye bu di jaatu borom Ndiassane mhm. ren bi nu ko ëndee Ndiassane maa ngi fàttaliku alhaji maam bu yàlla yàlla yërëm leen ñoom ñëpp ak Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke ca ngan gu rëy ga ñu defoon kër ngan na te demoon tindoon ni ci sëriñ Cheikh ñoom ñaar seen ngan googu ma ci fàttaliku Mouhidine Ahmad Bachir su ma bàyyi ba ak Serigne Mame Bou Cheybani kii moo nekkoon porte-parole de la famille Kountiou kii moo nekkoon conseil particulier du xalif loola it continuer bàjjen la la mooy marraine bi ba tey maam Alaaji mooy parrain bi invité d'honneur Serigne Khadim Lo Gaydel borom Ndam sama mag lii rafet na lii daal lii rafet na moo fay daje lii rafet na lii lii rafet na euh, maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi tuub ci li ma li ma li ma li ma lire commentaire boobu ndax c'est important euh, jàngale la xam nga xam nga lan moo lan moo corrélation bi ñu warut a def mooy mm-hmm. sur internet ku nekk mën naa tudd nu ko neex effectivement mais ça ne veut pas dire que dafa am une quelconque responsabilité sur la famille mouride hmm. sur la famille de Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass parce que ku ci nekk mën nga def photo profilu euh, Oustaz Ousmane Niang lépp tur lépp wala lépp sant wax loo xam ne dëppoowul ak ay euh, ay ëdëb euh, livre Cheikh al ba mu njëkk taarix ca ba mu nekkee ndaw booba tey nit ñi ñu ngi koy jëriñoo ndax yar ga ca ne ak mag ñu baax ñi li ñu fi liggéey ci ci Sénégal donc ñu ngi dellu siwaat di di fàttali ne hmm. ay bés la yoo xam ne bu ci nekk hmm. woote wuñ fa ci dara mhm. lu dul ci yàlla mhm. et puis ñi koy woote ci ay famille religieuse la mhm. euh, nii la Sénégal baaxoo nii la ñu yàgg dëkkee muy lu taaru te it waxtaan wi defe naa amoon na solo ndax Oustaz Ousmane moom léeg-léeg mu laajte ay laajte yoo xam ne <laughs> lu am solo la <laughs> moom xeex bi xam naa li muy def si <laughs> dañuy dañuy dañuy xeex ba tëdd si naaj bi mais euh, Cheikh Cheikh Bou baal ma de man day wax dëgg yàlla bugguma laa sonal de waaye dafa am loo xam ne daal ñun ñoo ko moom de mooy euh, alimatu sadiya ba mu tegee liir ba mhm. ca ca ca mbaam ba mhm. mbaam ma gën a gaaw mhm. loolu de def na def na def na tamaa ko doon filmé nii de mais dafa dafa dafa dafa dafa nit ñi dañ koy beesal aljuma daanaka bu jot ma jot notification ne votre vidéo a été partagée et ça je pense que c'est c'est très important c'est genre euh, de petite histoire chantée euh, neex nañu ku nay tëriir di wax ni gàmmu bi daala bul gëm waxam ne ko seytaane nax na la xaalal imaamu nawawi te mësta fen gàmmuk rasul su dee bi daa rafet na kon sëriñ Muhammad nee na Abu Saïd buurub julit bu baax ba woon xanaa xamoo gàmmam gu rëy gu siiw ga woon juróomi junni xar la ren di sarxe ko bisub keroog Abu Saïd kenn gënu ko teg na ca ren di fukki junni ci ganaar sarxe keroog fanweeri junni ci dinaar fanweeri junni ci bagaan fees ak jinjeer la suukar jox fanweeri junni sarwiteer miskin ya ak yetim ya naa ko jërëjëf aalim yi naa ko yal na yàlla fay sa jëf taxul mu fay nabi yoneen kenn du ko dab dugoon ko nag rasul ju leeg tasab du xew maa ngi commencé ci rasul fi tasuleen dugoon ko nag rasul ju leeg tasab du xew falhamdulillahi alladi hadana bil mustafa xayri bani adnana njol makka moo di ibnu abdoulahi borom junjum ye cey rasulullahi abuhu bayi ba doomi abdul muttalib noobal ba na góor ñi kenn dootu ko dab wa ummuhu ndeyam ju baax ja amina moo gën ci jéegi laaxiraak yu addina sayduna muhammad moo gën ci doomi jeeg ji kon bintu wax bin um na lam jeeg ji kuy wuta raw ëllëg bisub yawmal qiyaam julil ci moom mooy ram kulli yëppi jaam ku mel ni sayduna muhammad amul du am billahi guddig judoom ca néegi baytilaayi makkata xayra kulla qaryatin tura li ajli zalika summiyat ummul qura judoom ba asiyatun tantay moussa ndokkel si naag mariama yaayu isa laajal lingeer ba yaayu abdourahman bisub keroog billaayi gis na kiimaan malaaka yaa nga rang di sànni seeni saan jinne yëddu woon di dem ba asamaan dexub bu xayra fer na taal ba dal di fay iwaanu kisra tax mu rëy ma daal di joy wa shamsu jant baa ngi bég di kontaan ma ngay wëndeelu bég di sañ ca ay couleur badrul ilaahi weer wa teg ca ay bidéew di nax rasul baaraam mu dey ba génne meew judoom ba doy na waar waaye nampal gaa gën a doy waar makka jigéen ñi kaw ga falalu daan ñëw di nampal liir ya fa juddoo ngir mën a am lu ñu dundalee seenu njaboot waaye ku ñëw ba jub soy na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da koy romb naan bii liir baayam dundul yaayam la dese te nampal jirim bariwul koom ña ngi koy romb waaye xamuñu yonent bi ku amul ndigal du ko laal gis nga ndigal moo gën ndugal Halimatu Saadiya moo am ndigal ba mu ñëwee Halimatun mu baax ma ñëw ànd ak ndigal wabtasamat ndeyam Aminatun di mooñ xalima wuuf ko bég di génne ay rangooñ wapta samat ndeyam amina tundi muuñ xalima jox ko weenu ndi jooram yonent bi namp ko mu jox ko weenu càmmiñam yonent bi gàntu ko yonenta teel a jub bëggul cërub keneen moo tax ñu tudde ko Muhammadul Lamin xalima wuuf ko war ca mbam ma génn wey jigéen ñi naan xalima nii nga gaawe tey meloo ni woon xalima wax nu lii lu tax xaalal ximaaru mbamma daa di geesu wax mbamma ni leen noppil xalima bul tontu maa lay tontu mbamma taxaw naan laa ilaha illa allah mooy li wóor muhammadun rasulullahi mooma war man de ci moom seey naa nee naa nërëm ku mel ni moom ma sufee am te dootu am alayhi min xaaliqina rabbil anam azki salaati kulli xiinin wassalaam macha allah kaw ma defe ni li